lii li muy wane rek mooy euh, li ñuy faral wax ci wolof naan wedd gis bokk ci gis ngeen fi ay toolu poivron poivron kilo bi ñu ngi koy jaayee daanaka 800 francs ba de yenn saa 1000 francs gis nga fi ay xale yoo xam ne nee nañ semaine bu nekk dinañ am lu mat téeméeri kilo ci poivron xam nga 100 kilos chaque semaine kilo bu nekk nga jaayee ko 1000 francs ah loolu salaire bu mag a mag la loolu li muy wone rek mooy suuf si mën dundal euh, ki koy jëfandikoo ci anam ñu mucc ayib tool bi nag comme ni ngeen ko waxee forage la panneau solaire ak arrosage lu mat juróom-benn fukk ak juróom-ñaari parcelle ñu ngi fi daanaka dëkk bi yëpp gis ni seen bopp ci lii nga xam ne moom la ci def lii nag benn la ci ñetti tool yu ñu am fii ci Notto Diobass yu mel nii boo demee Kër moo di Fall am na boo xam ne ëpp na bii ñetti yoon. boo demee également Mbodiène am na bu ñu tàmbalee boo xam ne aussi ëpp na bi ñetti yoon ndax plus de 15 hectares bu fekkee fi juróom benn fukk ak juróom-ñaari famille ñu ngi fi liggéey xaymal li war a nekk ci ñetti yoon ci loolu ci kër Mori fal ak kër euh, fële ca Mbodiène loolu dafa méngoo ak euh, programme bi nga xam ne dañ ko tëral ci commune bi mooy fexe ba suuf si nekk outil de développement nekk outil développement nag mooy nañu fexe ba dëkkuwaay yi ak liggéeyukaay yi mën a méngoo lëkkaloo ànd ci commune bi ndax euh, yéen a koy wax sànq gis ngeen ne Thiès mu ngi màgg aéroport bu aussi sorewul waaye nañu fexe te mooy sunu euh, programme fii ci commune bi mooy concilier la ruralité et la modernité fexe ba nit ñi di mën a béy seen tool yi am dëkkuwaay waaye aussi fexe ba entreprise mën a teew loolu mooy sama taxawaay moo tax it programme yi ñuy def ci wàllu suuf dafa nekk concertation bu ñu wonee askan wi li ñu bëgg a def rek euh, loolooy indi ne doo am ben ciow fi ci euh, commune Noto motax gis ngeen ñetti tool ngi fi euh projet Prodac ngi fi déggu leen ci ben ciow parce que concertation large la boo xam dañ ko def ak chef de village def ko sous préfecture yi def ko également ak nit ñoo xamné lekk lo ak ñun ci walu gestion foncière pour que mu nekk lo xamné day indi développement mais mu nekk lo xamné aussi day aar suuf si. tey alal adina ci suuf la nekk ak ci ndox bërëb boo xamné ne nag suuf nga fa ndox nga fa buñ fa développer nak ci ñun la loolu wala fi ngeen gis projet bi mel ne ndax xam nga tey tool bi xel xalaatul nit ñëw di ko jaay mbaa di ko sàkk pexe lii mooy njëriñu dëkk bi. donc gis ngeen fi développement am na fi énergie renouvelable am na fi ndax euh, ndox mi ci wàllu solaire lañ koy fonctionner jeunes yi taxaw nañ ci dëkk bi jigéen ñi taxaw nañ ci dëkk bi loolu aussi day gën a ñoŋal éducation des enfants ndax famille bu ñu toogee ci dëkk bi ah dinañ am jotu ñu jox leen yar boo xam ne ëllëg ñoo nekk les citoyens ñoo nekk les dirigeants de la commune. donc loolu nekk loo xam ne lu ñu sawar la te concept bu ñu développé la fi ma nekk wax yow au niveau de notre Diobass ñu ngi liggéey ci un programme d'occupation des sols bo xamné day développer bu baax a baax a baax méngale également entreprise mais aussi ak ruralité manam fexé ba mbey cham ñu gën ko saxal ndax amul benn réew ci àddina bi boo demee Amérique te ñoom ñooy sàmm sàmmkat yi gën a mag boo demee Chine noonu amul benn réew moo xam ne mën na am développement industriel te réglé wul problème autosuffisance alimentaire. mbas moom nañu tënku rek ci lu la kër docteur sant mooy masque yi geste barrière. fexe ba lépp luñ ci sant ci fànn googu rek ñu ñu ñu doxal ko aéroport nag bu ñu ko ubbee am na ay matukaay yu ñu fa jël ci wàllu contrôle mais aussi ci wàllu sàmm aar kaaraange askan wi. donc loolu aussi ñu ngi koy def ndax tey ku jógee aéroport bitim réew ñëw ay AIBD am na fiche boo xam ne jël nañ sa tur jël sa téléphone xam foo dëkk bu ñu na tey te amuñu ci yow benn feebar mën nga dem ci biir réew mi bu fekkee da nga dañu gis ci yow lu mbas mi. waa kër docteur waa ministère de la santé am na ay matukaay ñu jël mais même bu fekkee da nga dem te gis ñu ko woon ñu gis ko ëllëg dafa am aussi am na ay jumtukaay yoo xam ne waa docteur jël nañ ko donc vraiment maa ngi ñaax sama bopp di ko ñaax waa Sénégal yëpp ñu góorgóorlu ba lépp lu ñu santaane ci wàllu aar kaaraange rek contre mbas mi contre Covid 19 contre coronavirus ku nekk béy ci sa waar ndax loolu mooy sunu njëriñ te loolu mooy njëriñu Sénégal.